président CNG. waaw gis nga tegg nañ Alioune Sarr. Hmm. andi président bu bees Bira Sène. Hmm. fi teg. Hmm. est-ce que ko télé keroog nag wax dëgg ne yàlla seetaan naa ko télé keroog. mais ak seen mërkura bi ma yaakaar. mosuma koo xam. waaye seetaan naa ko télé keroog nag wax dëgg ne yàlla. mais am nga yaakaar ne mën naa jiite CNG bi. aw ma yaakaar kenn. boo defee ma gis ma a ah, def na waaye yaakaar bu ñëwagul ah boo amul xam xaw ma ci yow dara de Bira Sène nag wax na lu leer hmm. moom bu dee président CNG la hmm. waxoon nañ moom day téye CNG de na ko ñi jàppale waa làmb buñ ko jàppale wee hmm. buñ ko jàppale pourtant day dem waaye Sénégal nag boo nekkee lii ñii di siisu fii ñii di siisu fee waaw kan mooy dem Sénégal Sénégal ka mooy demati Sénégal sax boo nekkee roi des arènes sax ñooy bëgg nga nekk roi des arènes Sénégal ñooy bëgg yow nga nekk roi des arènes nga nekk roi des arènes on a deux ans ñu bëgg laa daaneel waa kan mooy dem. yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàbbu yóbbu ak jàmm mu doxal CNG ci jàmm ak salaam ak respect ak lépp ci moom.